Sous-titrage FM Libério. FM Ribadi Sunuker FM jaajëfal leen ci ànd beeg teelu bi seen rajo sunu kër FM xibaar yi dikk bëccëg gi gannaaw ba fanweeri simili mbootoo ci benn waxtu li gën a fës yi la xibaar. suñuy kër FM. bokk na li gën a fës yi la xibaar dañu ko doore ak gannaaw ba nga xamee ni ne moom njiitu réew mi def na message à la nation askanu ko Sénégal ba léegi ñi ngi ci waxtaanee rawatina fii ci dëkkub Mbose Kumba jigéen ak daa ngeen teewlu jàngat bi ak nday Yaali Fall ci yi la xibaar buñ ci wax ak prisonniers yi ñi nag ñi ngi nekkoon ci grève de la faim kii di maître Assane Dioma Ndiaye daal dina yëkkati ay kàddu gi nga xam ne nag daañu fexe ba lépp lu ñu mën rek ñu mën a nekk ñoom itam ci condition yu baax ñooñu lay prisonnier daa ngeen teewlu yàttal gi ak junior Cissé ci yële xibaar fàcc ko njëkkee dañ koy jeexale ak phénomène bi nga xam ne nag ñu ngi koy nemmeeku bis ba yàlla sàkk muy mag ñi nga xam ne ñu ngi sàkku ndaw ñi maanaam pédophilie ana lu ko waral waaye itam ban jeexital la am ci ki nga xam ne nag moo dund li ni mel roqee sàll lañ ci fas yéene àndal ñaareelu xaaju xibaar yi ñaari ponk lay doon xibaar yi biti koy doore li ëttu yëg lekkaay xëy tey moo ko yëkkati mbokk yi ponk yaa ngoog bu ngeen taaxir loolu ñu faram fàcce ko. xibaar yi ci suñuy kër FM. kaddu gi bàyyeekoo ci cœur de ville bu Kaolack janook El Ibrahim Ka ci xarale gi ñu leen ko junjee ci bopp xibaar yi la ñuy koy doore ak message à la nation bi nga xam ni moom njiitu réew mi def na ko niki fanweeri fan ak benn 2021 bi nga xam ni moom lañ génn ngir rek utali 2022 askan wi nag kenn ku nekk yaa ngi ci wax sa xalaat rawatina fii ci Kaolack dëkk Mbose Kumba jigéen ñoom ñi nga xam ne nag ñoo fi yeewoo ñi ngi yëkkati seen kaddu di xamle ne xaarande yi nga xam ne doon nañ ko séntu ci bile discours nday yàlli fal Cissé ci jàngat bi. gannaaw discours bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall mi ngi ko doon amal ni ki 31 décembre gi ñu weesu comme ni mu ko doon defee at bu jot atum ren ji nag ñenn ci askanu senegal moom rafetlu wuñu discours bi benn yoon gannaaw ay poñ yoo xam ne nag daaw ko laal. ndax wax dëgg yàlla dëkk bi métti na jeunes yaa ngi taxawaalu dund bi cher a la jeunesse la lancé dans la drogue et l'alcool ndax xale yi amatuñu xëy ndaw yi nga xam ne ñiy jàmmat liggéey ama ba ci àll bi yenn village yi nga xam ne ñiy kaas yenn affaires yi vraiment yooyu tamit andi leen déception ndaxte lu bon bon pour na si am lum si cof daal bu ñu sukkandikoo ci moom mi nag di wuyoo ci turu Modou Tall mu ngay xamle ne askanu Sénégal moom war nañoo delloo njukkal bu baax a baax njiitu réew mi Macky Sall mu ngay wone ay réalisation sera comparé Sénégal est comparé parce que lii ñu am ni suñ la waxul ni fii Sénégal la su fekkee dem nga xam xàmmeetoo dara Sénégal suñ la wanee image si euh, yoon yi ak si échangeurs yi doo mun a gëm ni Sénégal moo mel ni léegi si koom ak si ibbeeku ak si développement wax dëgg yàlla président de la République Macky Sall dañ koy ñaanal. fekkee ne sax ñenn ci askan gi ànduñu si discours bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko amal ni ki 31 décembre gi ñu weesu ci geneen wàll ga moom mu askan gi daal dinañ ci kontaan bu baax a baax tax rek ñu daal di àddu di koy félicité waaye itam di ñëwaat ci réalisation yi nga xam ne daal dina ko amal sneaker FM Ndeye Yaly Fall ci Cissé dañuy wax leneen ci le xibaar ak cellule d'appui au président Macky Sall bi nga xamni ne daat nañu koy lancer mu dal di dugg ci cadre renforcement jëm ci walum solidarité ak dal bi nga xamni mom moom la woote gannaawam mi doon def bobu le discours bu ñu sukkandikoo eh, ci kàddu kii di Mamadou Ndiaye way ki nga xamni mo nga xamni mo fi teewal eh, vice président bu plateforme xippi la xool li Macky liggéey way ki nga xamni eh, moy président bi di Doro Gueye moom itam daat nañuy yëkkati ay ay kàddu ah, jagleel koko ngir rek moom itam mu daal di nekk ci wàllum solidarité rawatina acteur politique yi nga xam ne ñu ngi yëngu fii ci ah, diwaan bi ñu la ay kàddoom ci micro suñu kër ku xam Doro Gaye xam ne nitu social la ku xam Doro Gaye xam taxawaay bi mu yàgg taxawee fii ci Kaolack mooy comme ni ma ko waxee sànq pàcc boo laal ci Kaolack dégg nga nam fa taxawee ngir jàppale ay frère am ngir jàppale ay sœur moo xam ci école yi moo xam ci hôpital yi moo xam feebar buy am di ko sonal lu mel ni Covid moo xam ci inondation yi ñu fi gis ñëpp xam nañ social bi muy def ci famille yi nga xamante ne ay famille démunie lañ maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw loolu lépp soo ko boolee day dugg ci objectifu CAP ndax

kenn amul droit indi fitna ci réew mi kenn amul droit tal réew mi kenn amul droit nasaxal li nga xamantene moy mooy koom réew mi ndax japp naane suñu ëndé violence dinañ nasaxal koom-koomu réew mi te suñu boba suñu bop la nasaxal wax ak euh, ñu daal di jumal foofule ca diwaanu Ndofane ak kandida bi nga xam ni moom lañ tabb ngir mu bokk ci jongantey élection locale yu 2022 yi bu euh, ñaar fukki fan ak ñett jote ci weeru janvier moom Cheikh Ndiaye nga xam ni moom la ñu tabb foofule ca Sikatouroum mi ngi xamal ni lan moo tax ba kandida candidat jëm ci wàllu commune bi foofule ca Kër Bakka waaye itam di sant askan wi nga xam ni teeru nañ ko kàddoom di nga xam ni moom moo ko yor di Ndiouga

le notre leader mu re monsieur Cheikh Mbaye Ndiaye mënuma lim ñëpp mais bokk na si kenn muy Mouhamadou Moustapha Cissé nga xam ne moo fi représenté le parti réew mi à Ndofane bokk na si kenn tamit le coordonnateur kenn ki nga xam ne nii kor mu Macky Sall bi ko ñëw Ndofane moo ko fa njëkk indi muy monsieur Diallo Lamine Diallo bokk na si kenn tamit

yaay boy bi muy Adja Wuri limna naa yep parce que mooy seen présidente côté réseau des femmes mi nga xamné tay sen secrétaire général Ndeye Maremba moo fi teew au nom du réseau des femmes du mouvement pour l'émergence et le développement limna ñep é damay ba sans plus tarder sa ban pour ma bañ a rek damay nuyuwaale tamit sama grand frère Pam Mbaye mi nga xamné tay dafa baye yiteem yep ba ci démb la jógee ko France ñëw ne day ànd si délégation bi accompagner ñu kon grand ñu lay gërëm di la sant kon mbokk ci ka ñu ngi leen ñaax dañuy euh, desandi ci boobule euh, mbir foofule ca Ndofane ca village ba ñuy wax sikaturum bi la yoon ak nga xam ne nag mooy Cheikh Ndiaye bi a benn appel jëmale ko ci ndaw ñi rek ñu daal di sànni la seen i xob kii di Ndéné Mbodj ndax jàpp na ni mooy candidat idéal boo commune bu euh, Kër Bakka ay kàddoom dénk na ko Birame Ndour di leen tàllal loxo ka waxtu wi kat lañu moo jot mu ñu ñëpp ñu booloo parce que mënuñu am ay doom yu mel ni professeur wax kàddu yu am solo sànq si séeréer dégguma ko mais mooy nit koo xam ne nii soo demee université ba nga xam ne moom a a la a jëm yàlla may ko si ndam dans la commune Kër Baka moo frère Ndéné ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may na ndam et eh, di leen wax ni ngeen ñaanal tamit kenn si yéen kenn ki nga xam ne ni tey suñ na Sika rek dafa collé avec son nom mooy suñu leader am jom am fulla nit ku am fayda nit ku xam ku lu ñuy dox nit ku bëgg lu baax nit ku bëgg lu baax tey boo xoolee Sika rek foo romb rek projet yi jebbi nañ muy wàllu marché bi collecture mur mur mur CM bi construction poste de santé bi foo laal rek yaa ngi fay fekk loxo Cheikh et pourtant nag bu ko neexoon nit mu ngi juddoo si dëkk bañ faa def dara mais mu ngi def lu ko war biir Sika di ko def lu ko war dans tout la lagem kon ñu ngi ñaan yàlla ngi leen ñu leen di tallal loxo pour ngeen ñaanal ko yàlla combat bi nga xam ne sóob na ko moom la yóotu ngeen ñaanal ko yàlla mu am ndam ngeen jàppale ko bu baax parce que mbokk yaa ngi fa xarit yaa ngi am di jàng mu naa ni nit su nekkee si combat dompat sax bokk sot léeg muy xëccoo si ka fa lay muy xëccoo Ndofane tey ah coalition bu mag bi ak ku gis lii xam ne Ndofane yaakaar am na foofu yaakaar bu mag am na foofu tey nu ko Ndeye Mbodj waxee tey ne si ka jommal na leen dimanche si ngoon wooy boobu dina jub jub si fii incha allah rabbi Cheikh dina gañ Ndofane loolu nag dafa naa ni coalition bi yëpp mun nañ ma seede Sunuker FM

prisonniers yi nga xamanteni ni ñoom ñoo nekk ci camp pénal bu Koutal ñuy amal grève de la faim maanaam gréwu xifal maître Assane Diomba Ndiaye di xex lepp lo xamanteni dafa jëm ci ak ak yelef doomu adama daal di fësal ne di colonel Bokandé daal ney dalal xel yi ñeel li nga xamanteni mom modi ñu gëna a ñoŋalaat prison bi nu mel ñom ñooñee sax di kilifa yi bëgg nañ boole camp pénal bu Koutal mu bokku ci prison yi nga xamanteni ñom ñoo gëna mucc ayib way itamit di sàmmoo ak ak yelleef doomu aadama rawatina ñiy caabi di féetoo ginnaaw ñoom ñooñee di kilifa yi sax daal dina ñuy waxtaan ak ñii di prisonniers yi dalal seen xel rawatina itam lu jëm ci seen dund gi nga xamante ni ñu ngi koy jot ci prison bi nu mel moom moomee di xeex àq ak yelleef doomu aadama yi di maître Assane Diomba njaay daal dinay xamle ne jafe-jafe bi yëpp du lenn lu dul système bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee doomu aadama yi ndax da gis kuñ àttee fële sa diwaanu Yes, ba jàpp jurbel ñu indi ci Bukutal, bu kutaal loolee buñ sukkandikoo ci avocat bi daal dinay xamle ne dëppoowul ak lu jëm ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama ci lu jëm ci visite yi nga xamante yoon daal dina na la wante na kilifa yi bàyyi xel bu baax baax doomu préserver lii dignité ci prisonnier yi fare ci camp pénal amal ap grève de la fin. lànk bañ ne duñ lekk noonee gannaaw ba nga xamante ni daal dina ñuy nemmeeku ay sax ci seen lekk gi nga xamante ni moom lañ leen joxoon ay bés yi ñu génn ba noppi ñoom ñooñee ñi ngi ñaawlu bu baax a baax lim bu tuuti bi nga xamante ni gracier nañ ko ñi nekk ci seen prison yi ñu jàpp ne atum ren dong ñaari nit kese lañ jël daal di leen di gracier. Signor Cissé leneen lu yoon war a ñaawlu muy wàllum pédophilie mag ñi nga xam ne ñi ngi sàkku xale yi seen mel ay laaj daal di samp ñi ko dundoo naka la ñu koy dundee waaye tam yoon solution la ñu ci indi jàngat bi ak roxee sàll gannaaw ba ñu seetloo ni mbirum yi dafa bari lool ci mim réew di Sénégal rawatina nag jamono yi saa boo yeewoo rek daal di dégg li ñuy mel tax rek ab laaj daal di samp ana lan moo waral bi la mbir kii di Birahim Seck sax moo ngi dikkaat ak ñun ci cause yi. première cause bi mooy que ne du lu ñuy tey mais feebar la suñ demee ba mën liir xam li yàlla tere ak lim digle ci lu baax te le plus souvent ñoom lañ ci gën a ràññee ci seeni taalibe yoo xam ne ñu ngi ci daara yi di sàkku xam-xam dañuy dem ba ci biir kër yi aussi ñu gis ak acte de pédophilie diggante papa ji ak doom yi kon des choses yoo xamante ne ni sont strictement lien et très proche nga xam ne kon loolu vraiment du teex mais dafa nekk loo xamante un mal boo xam ne dañ koy mooñee ak nit ki manam la cause est profonde comme ni mako ko waxee. sociologue bi mom ngi dikkaat ak ñun ba tay ci li nga xamante ni modi moo conséquences yi nga xamné mom lay jural xalé yi nga xamante ni ñom lañuy la cette marge comptable voilà day nekk benn jeune bo xamante yow sa dundu bi dé sax mom mo la koy gënal donc les conséquences sont énormes mais le plus remarquable moy le fait que yow tu es mis mal à l'aise envers la société que tu vis loolu moom moo ci gën a gën a gën a gën a euh, fës comme conséquence voilà. Ndam sax mbir mu yéeme la lool waaye nag moo ngi xamle rek ne dañoo wara tek ay mbir càmbar ko ba nga xamantene ni rek ñi nga xamne ñokoy def ñu mëna bayyi bàyyi li ñu mel. solution yi nak je pense que nous en tant que sociologue dañuy wax ci côté sensibilisation à chaque fois def ay campagne hein, ay caravane de sensibilisation ci thématique bi afficher ay ay banderole partout ngay expliquer sur des photos des images peut-être nit ki su ko loolu loolu jéegee même bu dee feebar la ci moom à chaque fois su xëyee romb banderole bi ci quartier bi dana ko wàññi ba moom suy def acte bi dana ko waaj waajaat waajaat. mu nekk mbir mu bari lool tax rek ñu bari jàpp ne ñu koy def dañoo àndut takk seeni sago tax rek ñuy ñaan nguurub Sénégal mu daldi tekk ay daan yu sévère sévère ndax rek li ñu mel gën wàññeeku ci réew mi ba sax ñu dem ba dootul fi amati. Rokhaya Sall dem ba dootu fi amati dañuy daal di sóobu ci ñaareelu xaaju xibaar yi gannaaw ba ñeent fukki simili ak ñeent bootoo ci benn waxtu. xibaar yi ci suñuy kër FM. ñaareelu xaaju xibaar yi dañ koy dooree ak xibaar yi biti réew dañ ci ànd ak soxna Roqe Sall dal leen jàmm si xibaaru biti réew yi dañu koy dooree rek fii ci ndennum Afrique daal di dem ba fële ca diwaanu Haïti foofee nag niki samedi bi ñu weesu yema woon nag benn fan ci weeru janvier ci at mu bees bi di atum 2022 la ñu doon féete seenu ko indépendance bi nga xam ne daal di nañu ko woon am ci atum 1804 nga xam ne rek ci lañ daal di jugee ci loxo yi français yi mujjee copparmiku ab jàppante diggante takk der yi ak eh, benn ko groupe doomu aadama boo xam ne dañoo jàpp rek ne dañoo doon waaja faat ki nga xam ne moo di élimaanu jëwrin nga ki nga xam ne sax moo di moom moomee nga xam ne moo jiite gouvernement wu Haïti ñu daal di wéyandi xibaar yi ba fële ca Afrique de l'Est kii di jëwrin bi ñu dénk wàllum bitim réew fële ca réewum Chine eh, di wuyoo ci Wang Ying moom nag daal di nay amal ab tournée fële ca Kenya Érythrée ak Comores door nag niki tey ci talaata yemoo ko ñeenti fan ci weeru ko janvier gi doxuk ne meeku gi war a toll nag ci ñeenti fan ñu daal di jàpp rek ne bii la moo di ñaareelu yoon jëwrin bi ñu dénk wàllum bitim réew fële ci réewum Siin daal di teg tànkam file ci diwaanu Afrique bi la tournée nag gannaaw ba nga xam ne daal di woon fii ñëw ci ay weer yu gàtt ci te ba ñuy tëral li nga xamante ne nii moo di kuréel bi ñuy wooyee FOCAC ñu koy wooyee sommet sino africain de Dakar bi la nag daal ubbi ay laaj yu bees jëmale ko ci coopération économique de vaccin contre le Covid 19 waaye tam bokk na ci wàllum kaaraange fële ci réewum Pékin ñu ne nag bile mbir dina gën a dëgëral diggante réewu africain yi ak diwaanu Chine xibaari biti réew yi dañu koy jeexalee fële ci diwaanu États-Unis kii ñuy wooyee nag Elizabeth Holmes nekkoon fondatrice kuréel gi ñuy wooyee Start Theranos moom nag daal dinañu koy teg loxo gannaaw ba nga xam ne sax jàpp nañ ne moo nekk jigéen buñ njëkk ci réewum États-Unis nekk ab milliardaire li ñu ko jàppee nag bokk na ci fraude contre des investisseurs foofee ci diwaanu États-Unis xibaar bi réew yi jaar na fii buuri di leen ñaanal kendalug jàmm ak salaam. jaanal ñaanal moom itam kendalug jàmm ak salaam dañu daal di àddu ci ponk bu mujj bi li ëttu yëglekaay yi xëy tey Mouhamadou Ndiokh Cissé moo ñu koy dégtal. te leen ak jàmm mbaa yéene nga sa njiitu réew mi Macky Sall kañ jamono jii mi ngi ak ay inauguration ki pose premier pierre mu melni ni que ni kañ mom moomee njiitu réew mi Macky Sall dal dinay song bu bax bax chantier yi nga ni la yu bari ni ki tay dal di kay source a lu toll ci 3000 milliards lañ fas yéene ci kaw bi ñeel lancement wu travaux portu Ndaayaan ngir ñu décongestionner port bu Ndakaaru ak environ yi mu mel ni que ni ñoom ñooñee investisseurs yi ak njiitu réew mi Macky Sall dal dinañ ngir soobu ci li nga mom modi bi bi di Les investissement privé bu gën a rëy ci histoire u Sénégal lañ daal di lancé niki démb ak pooru Ndayane bi mu daal di couvrir lu toll ci 1200 hectares ci loo xam te ni mi ngi jëm ci 410 milliards ci ñeenti at état bu Sénégal doon ci actionnaire pour cent waaye itamit lu toll ci 3000 emplois des nañ kaa mën a xaar ci port bi nu mel impact yi nag ñu moom njiitu mi Macky Sall mi ngi wéyandi di dalal seen xel yéenekaay bi di laas naan njiitu réew mi Macky Sall kañ daal na leen di wax lu am solo ndax jàppal Sénégal mi ngi naan leen fii ak jeexintalu weeru février képp koo xamante ne impacté nga daañu la dugal ci sa biir droit ba nga jotee li nga moom yéenekaay bi di le mandat naan ñu njiitu réew mi Macky Sall kañ sorti yi muy def ak yi ba ci pose première pierre lii lépp ab politique kese la maanaam ci gàttal dafay xàllal ay nitam yoon yéenekaay bi di Walf Quotidien naan ñu local yi 2022 coup de pouce bu ngand la Macky Sall di amal ay ñoñam maanaam moom moomee njiitu réew mi Macky ba pare ñëw rek jàll moom moo ci des njiitu réew mi Macky Sall lu ko desee ci mim réew daal dinay bëri loola waral ba ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien ñii di société civile bi dañ kaa saqatoo ku ci mel ni Alioune Tine bu jom Center mbala sax Ilimane Habib Kane bu Legs Africa ñoom ñooñee ñëpp jàpp ne lu soxal déclaration yi ak réalisation yi ba ci sax xaar gi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy amal ñeel projet njiitu réew mi ñu am jeexantal yu mucc ayib problème yu nemmeeku ci gouvernement bi ba ci sax illégalité sociale bi lii lépp ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci miim réew te njiitu réew mi Macky Sall war naka kaa lijjanti leneen loo xamante ne moom Macky Sall war na kaa lijjanti mi ngi ci biir yéenekaay bi di critique naan ñu lu soxla rapport OFNAC yi jébbal procureur bi am na yenn dossier yoo xamante ne moom njiitu réew mi Macky Sall concam la ci teg ndax du ko bàyyi mu jàll leneen loo xamante ni suñ ko bàyyee mu jàll du jig miim réew mi yéenekaay bi di enquête mu ñuy xamal ne ay scandale financier ki foncier lañ daal nemmeeku ci mim réew rawatina ay agence publique yu état bi ay càcc yu amul fenn lu ci mel ni si SICAP poste post finance IPRES trésor public ba ci saara ay walisu milliards yoo xamante ni ñu ngi koy détourné ministre des finances di wéyandi di dëggal naan ñii di DG wu trésor ak douane kenn dàqu na mu barak loo di ab économiste naan ñii nga xamante ñoom lañ tudd ci mbir yu nu mel ñeel ay luubal ci alalu réew mi foofu rek ñu daal di rëkk seen digg ba nga xamante ni keneen kuy toogaat ci post bi nu mel du ko xalaata def ñu def ab liggéey bu mucc ayib ñu ci biir yéenekaay bi di Le Témoin mi ñuy xamal ne lu toll ci 1177 milliards lay mobiliser si recette ñii di soldat wu économie yu réew mi di douane yi kaña daal dinañuy pulvériser bépp record boo xamante ni amoon nañ ko ñeel at yi ñu génn ci ay recettes yi nga xamante defoon nañ ko mu doon ab liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la kuñ jàpp ne li muy wax jëmalewul réew mi kanam du genn ku dul Ousmane Sonko waral ba Seydou Sané ci biir yéenikaay bi di Le Quotidien di dal Ousmane Sonko yëkk ko lu mel ni xeme lim ko wax moo raw mbeloxaan weñ ba ca tab daal di dee moom moomee Seydou Sané daal dinay xamle ne Ousmane Sonko lim bëgg indi ab monnaie fee ci diwaanu Casamance objectifam du lenn lu dul mbirub fractionniste maanaam ci gàttal Sénélec seen fësal mbiru waaso ki gox ngir rek féewale Sénégal moom moomee jàpp ne Ousmane Sonko nitu fitna dong la ñeneen ñi nga xam ni gornoor bu Ndakaaru daal dina leen di tegal fitna du ñenn ñu dul ñi nga xam te ñoom ñooy jël ay jakarta di ko def welo taxi maanaam ci gàttal di amal ab transport en commun ñoom ñooñee gornoor bu Ndakaaru mu ngi leen di dànqaafu ne képp koo xamante ni daal dinañ lay jàpp ci li nu la teg ay daan yoo xamante keneen ku koy def danga ko yërëm ñeneen ñoo xamante ne dees nañ leen a yërëm ngi ci biir yéenekaay bi ba tey muy lu soxal mairie bu Diourbel muy lu soxal mairie bu Mbàkke état civil ba moom mbirub fraude lañ fa tegee loxo ñenn ca ñu fay liggéey ku amal liggéey bu ñaaw te salte mi ngi ci biir yéenekaay bi di libération muy ñëwaat ci révélation yoo xamante ne moom moo ñeel ab exécution bu horrible bu amoon fële sa quai de bu Yoff Serigne Ousmane Diop moom moo daal tëral kii di falilu Ousseynou Fall laata rek mu kaa rendi xatet comme ni ñuy def xar la ko def lu waral coow li nu mel waral ba deret ju bari ji daldi ciy génn du lenn lu dul problème mu ñeenti junne ak benn téléphone bi nga xam ne ñoom ñooñee dañ ko sàccoon defkatu ñaawteef bi nag gannaaw bañ ko jàppee daldi nañuy fekk lu toll ci fukki kornetu yàmbaa ci ay poosam moom moomee defeere woon nañ ko ci atub 2020 ngir mbiru agression mu ngoog danga may seetal lii rek te nit di ko rendi comme mbir mi moom jeex na ba noppi Ndeye Mary Dabo tëjël ba suba ak jàmm cant ngeeram yel ñeel na ko moom Mouhamadou Junior Cissé ci li ëttu yëglekaay kay xey tay moy dal di yëkkati sax jotaay benn waxtu yi ci biir sunu Sunuker FM des len di wéyandi ak suñuy programme ci www.sunuker.com wala boo ko www.sunukerfm.com ak suñuy page Facebook ak YouTube di ko jaajëfal bu baax mom Eli ibrahim Ka di len ñaanal kenn dal diko di ci en jere ngeen jëf xibaar yi ci Sunuker FM